Ndiaye xam naa njóobeen bi moom ñëwut <laughs> moom mi nga xamante ni bii boo ko waroon a feelu ca wet ga xam naa ni koor gee ko jàpp ba mënta yëngu dafa mel ni Ndiaye li ñoo gën a doon jàmbaar Cheikh Bara Ndiaye boroom def gis ñi ngi lay nuyuwaat. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala a wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fala tahlamu nafsun ma uxfiya lahum min xurati ahyunin jasaan bi kaanu yamaluun mangi lay fay alaaji saa njoogu mbeng di nuyu ñu ñu bokkal plateau bi di nuyu ñu ñi sétane ci rew mi ak bitim rew di ñital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha khalifa de mouride di ci tek cheikh mohammedul mustafa ibnu cheikh sidil mahtar di nuyu bu baax eh, soxna may bitu cheikh sidil mahtar di nuyu serigne abid diop di nuyu soxna eh, khadim mbake eh, ak serigne mudou aïs ak serigne abdourahman ibnu cheikh Abdul aziz bara maa ngi nuyu tamit sama xarit euh, Serigne Gueye doomi Serigne Magay Gueye ca Thiès maa ngi koy nuyu di kilifa diine bu baax di nuyu Moulay Hassis Gueye di nuyu Seck euh, sëtu Ngalandu Diouf ak rakkam Kole Seck maa ngi leen di nuyu bu baax di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis dañuy dooree waxtaan wi dal day ñëw ci li nga xamante ni bii nag moom la ñuy wax lii riir lii riir ci dëkk bi. di audio bi nga xamante ni bii Adji Sarr enregistré na ko ki nga xam ni moom la ñuy wax Mamour Diallo mu mel ni ojo boobu sax eh, yow def nga ci ay sorti ci wàllu ojo boobu génnewaat ca yeneen mbir yoo xamante ni bii après danaa ca ñëw parce que am na koo xam ni am na lu mu bëggoon a wax waaye dafa mel ni daal léegi xaw naa jubbanti yi te dafa mel ni yaa ko jubbantiloo raay mais Cheikh Bara Adji Sarr enregistré Mamour Diallo loolu noonu nga jàngatee. lu ni mel ba nopi audio ba ba nopi audio bi mu genné ko nan nga jàngatee mbir mom nga xamni mi ngi ci penc bi waaw euh, mbirum aji sar, hmm. euh, da ci am lu bes lu bes moy lo xam kenn xaru ko won moy hmm. li am mom ah. amul kenn ko xam ah, xaron goko lola la liñu xaron moy nit top aji wala yon wax loko wala dara dal lo xamantene euh day joge fenen dal mm. ci kaw aji waaw waaye aji tok bam yag manam mu enregistrer bopam enregistrer ñeko sante mbir mi mm-hmm. eh, genné ko waaw defé naa liñ nane yeewi askan wi aji mom da yeewi askan wi waaw aji mom aji yeewi askan wi mom mom mom na askan da tok bam mu waaw mu yeewi askan wi yeewi askan wi waaw nak hmm loolu kenn mënu ko wona calculer kenn xaru ko won waaw kenn xaru ko euh en tout cas nag mm-hmm. Euh, am na ci yoo xamante ne nag mm, lu mat a taxaw la. ci biir audio boobu ba noppi doog cee ñëw nag ci yan mesure lañ ci état bi war a jël. lan lañ ci war a li mat a taxaw mooy. Hmm. Euh, ay laaj yu bari. man li njëkk mooy bi ma dégloo audio bi dama mujj defe ne Mamour Diallo lañ violé wala aji lañ violé. Mamour Diallo. moom lañ violé wala aji. ah wax ni ah, xam nga bu fekkee aji waaw bu fekkee aji lañ violé. li xel nangu mooy bu enregistrement amee tamit. aji mi ñu koy wole dem ci kilifa gu melna Mamour Diallo di ko pour bu mm. jappalé ko waaw nan ko Mamour jappalé ma ci lii dimbali ma ci man li dina ci def ni bul ma bayyi mm-hmm. nangam nangam mm-hmm. waye aji mi ñu yoole waaw moom moo toog ñi diko ko mm. pour mu continuer tok baña yakamti mm-hmm. légui nak nag loolu xamut ba xam nu ma demee noonu waaw Mamour ko maanaam Mamour mom lañ mu dem di babé mom mu dem di babé waaw te bo di ko wax moy mocci waaw waaw lii li yakamti bul def dara. Ah. trois mois yàggul li ma la waxoon lépp dinaa ko def. waaw waaw li ñu waxante woon. waaw ci biir audio bi tamit wane ne ko ne. Mhm. gëj naa laa gis. Mhm. kon daanañ gise waaw tey moom dañuy waxante lu leer nañ ñi maag yow. waaw euh, li ma njëkk a bëgg laaj mooy giseb Mamour jàll ak Adji Sarr. Ah. fan la woon ak kañ la woon ak lu waraloon seenub gise. ak lu waraloon seen gise seenub gise. Mhm. fan la woon ak kañ la woon ak lu waraloon seenub gise ndax audio bii ñu ko enregistré du lu gise bi ndax gëj naa laa gis la ko wax waaw gëj naa laa gis ndax da ngay muuru mhm. léegi ndax da ngay muuru léegi da ngay muuru waaw kon daan gise mm, te xam ne daa mel ne ba ma ko daan gise booba daawul da daan da daan da daan dangal mm, waaw di muureeku <laughs> bi ci des mooy euh, jëmmi aji ci boppam dafa dawoon mm-hmm. tëb ci balcon bi dem waaw euh, xam naa nag foofu moom dafa mel ne la daloon waaja moo ko dal waja waji da tok bam neexu ko mu ne waa bi xaaral ma ba xam beug nañ ma am hmm ne wo sacc sacc sacc sacc dekk ah. bepp genn ñew taxaw waaw mu ne waa dama leen doon xol ba xam rek ndeke ñi ñewon di ko ci si ci sacc bu seen euh xamna ab hmm. butéelu gaas am mbola yoyu waaw ba ñepp démé waja wañi ko ñew nag di sacc gaas bi hmm. mu naan wo tay naxuma leen ñew leen tay naxuma leen kenn gennul <laughs> waaw dafa melna aji waaw biñ nan dañ ko violer waaw damaa yaakaar ne dañ ko ko digaloon ne ko waxal rek ne dañ laa weyoole biñ demee ba koy weyoole nag ba jaral ko muy tëbi balcon waaw fii enregistré wut ñi koy weyoole duñ ko mën a jëm <laughs> waaw bee moom da ko waxoon rek tey nag moom bu génnaatoo naan ñu ngi may weyoole waat kenn du ko faale mu dem enregistré leen parce que man li tax ma gëm ne dañ koy weyoole <laughs> mooy aji fi ñu ko yóbbu wóor na ma ne moo dàq kër baayam moo dàq kër yaayam moo dàq kër Ndeye Khady Ndiaye jox la garde bu lay garde uh-huh. ay kilifa milliardaire tiim la. Uh-huh. ba lay baab nga xam ne doo am problème mu xaalis loo bëgg ñu jox la ko. dëgg la sinab yi nga jot a génne itam. ku la uh-huh. gis xam ne yaa ngi ci jàmm. mel na ne na nga daan fa nga nekk mi ngi gën a noos. ça va il faut parce que gën bi <laughs> léegi ba <laughs> doon biñ ko wéyalee parce que daa daa yuuxu woon te kenn defu ko dara. <laughs> parce que li ma jaaxal mooy koy violé ne kon bi violeur yi moom fi ñu ko léegi nag parce que bi moom li tax li tax ma jàpp ne dañ koy violé. waaw mooy fi ñu yóbbu aji moo gën kër ndeyam gën kër baayam. waaw. moo foofa am na clim am ventilateur ah, wóor na ma ne ay milliardaire buñ la seqee doo am jafe-jafe xaalis mm-hmm. dem ba wutal la ay garde yu lay garde waaw léegi aji bërëb bu selle noonu teg la ci condition yu baaxee noonu lan lañ ko war a def ba muy tëb balcon di daw ba muy tëb balcon di daw loolu luñ mat a taxaw la lu ko naqari fa mu nekkoon ba mu mm-hmm. tëb di daw man nag li ma gëm mooy dañ ko doon barkeeloo nang ma jéggal cadeau gi ah, lool do nga la japp ni motax mo ngi daw ah, ah, lu tax nga waaw mom ah goné hmm. manam saa njóogu waaw lu tax hmm. ñu duggal ko ci bët bâtiment bu baax waaw garder taxaw kilim ne fa ventilateur ne fa ay borom xaliss taxaw hmm. fo jëm auto lay yob lan moom mo koy fekk fofu lu ko naqari ba mu ko di daw hmm loolu matna set waaw bu fekke dañu jël ak goné dañ koy dimbali waaw te mag mu jaar barkeelu loolu dana ah, daw loolu moom ah. nañ ma jéggal kàddu gi ah, waaye euh, am na ci loo xamante ne aji mm-hmm. waxal na ko boppam ah ca audio ya mm-hmm. waxal na ko boppam waaw mais loola dana dana ñëw mm-hmm. amul yàkkamti moo tax ma waxee ko noonu maa ngi jéggulu nag sax kàddu gi ni ma ko génnee noonu waaye waaw moom ci jëmmi boppam waaw moom moo wax ca audio ya ne waaw gis nga diw diw diw ñoom ñëpp nangamtaan seen ndey ndax dañ may def nangam wallaay moo wax loolu ko wax ne diw diw dañ diw diw diw diw moom daal ñëpp nangamtaan seen ndey saagale leen def lu tax mu saagale ne leen dañ may nàngamtaan rek bis bu ne moo ko wax aji ko moo ko wax te ba audio génn man du ma fen audio yi bu génnee di nga ko dégg audio ko dégg ci sa nopp moom mu ne diw hmm? diw diw ba mu yàgg ñoom ñi ñëpp nangam nangam yow dégg lool maa ko dégg ci làmmiñu Adji Sarr. subhanallah kon ñoom. lañ def pro euh, procureur daf leen a war a jàpp. waaw mooy jël doomi jàmbur séquestré waaw yóbbu ko ci appartement. waaw ko fa xam ne boo ko bàyyee mu daw nga jël ay garde mhm. teg ko fa ñetti garde lañ ko tegaloon ku ku bu kii ñëwee heure bi buy dem kii day monté. Mhm. bu buy dem kii day monté. voilà lolu mom ba wóor na noonu lañ ko doon def tamit garde ah, non dal non dal lañ ko doon def di garder hmm? li wor te wor tamit waaw moy xalé bi mom hmm? ci lammi ñam man nango na ko mu ne ñoom ñooñu ko séquestré won dañ koy tëddee han moko wax wallahi wal al asim moko wax mom moko wax allahu akbar aji sar moko wax mo ne ñom dañ ko wey def nangam ak nangam ak nangam hmm? waaw te ban lima wax bis dina ñew su audio yi su audio yi degil lima wax di ngeen ko déggal seen bop kon ñooñu. wala Seck Seck dañ leen a war a jàpp. dañ leen a war a jàpp teg leen. Mm-hmm. Mamour Diallo nga xamante ne mooy responsable bi. waaw Macky Sall. boo xoolee daaw. waaw woon naa. Mm-hmm. Adji Sarr. Mm-hmm. folli na siis rey na siis follib follib euh, commissaire tëj Sewit bute waddal président ci des. lii boo ci jëlut say say responsabilité yi ñu ci war a jël. Mm-hmm. sanctionné ñi nga war a sanctionné. waaw sénégalais yi am na loo xam ne duñ la ko duñ ko bàyyi mu jàll. Mm-hmm. voilà bu mu génnee ci quatre vingt euh, euh, euh, quatorze personnes yi nga xam ne dafa faatu. te ay doomu Sénégal. Mm-hmm. nga xam ne complot yu ñàkk fayda yi moo leen rey. waaw bu loolu lépp jàllee. waaw fekk goneeg jàmbur gu nekk ci néeg di léggéeyub liggéeyam. nga jël ko. manipuler ko. na ko waxal ma nangam te loolu jubluwoo ci lu dul rànkiñee ak ay acte Mhm. xalaatoo ne kii doomi jàmbur la xalaatoo ne kii ñi muy giiñ sax mën nañ ko jekku rey ko nga dem jël ko jële ko ci bakkan ak bànneex bi mu nekkoon ak kiisaloo ko ay doomu aadama ba mhm. pare yow nëbb say doom te dégg nga Mamour Diallo ne ko am naa doom yu toll na yow waaw voilà nëbb say doom denc leen génnee doomi jàmbur teg ci taabal ji mhm. di ko buux di dugal ci katkat di yunni yunni ba ba fexe ba mu dem dugg ci loo xamante ne mënu ko mesurer amatu leen lenn lu ngeen def lu dul jël ko yóbbu ko gannaaw mus gi dugal ko fa ci appartement di mm-hmm. garder hmm man fam dekk diko di hmm goné ga nak moom néna waaw ñoo ko tëj ci appartement bi dimbali wuñ ko o lieu ñu dimbali mais dañ koy allah aji moko ko wax hmm? waaw aji moko wax aji sar moko wax mo né dañ koy waaw ñoom loola nak dama bëgg mm-hmm. procureur bu woyé señ mbay mu jox ko audio yi dina ko déggal bopam su paree mm-hmm. ko na leen na leen jël ñom ñoo ñëpp attendre leen bu fekkee gone gi waxul dëgg. waaw ñi xam nañ du waxkatu dëgg bu fekkee wax na dëgg. waaw heure yooyu ñu nekk fii dañu sonal ci Sonko ñi séquestré doomi jàmbur kay di ko def jëfi jëfi caaxaan kay ñooñu lañ war a tëj. Hmm. ñooñu la yoon war a jàpp tëj leen. voilà. waaw mais Cheikh Bara léegi man dama dégg keroog euh, maître El Hadji Diouf euh, avocat Adji Sarr euh, muy wax léegi moom bon ci biir waxam sax léegi commencé naa ci dégg mi wax yàlla. nena bu fekkee ne li aji sar bu dee tuuma amul léegi le fait que muy wax touma yi amul est-ce que parce que yow dafa melni audio bi nga don wax noonu euh, sa joxogn bi ko joxogn man ji duma tuddu kenn ah waa mais sa joxogn bi dafa joxogn gis na Sa Ndiogou Sa Ndiogou hmm. man audio yi waaw man na am non parce que yow da nga wa dama ne man na am mën naa am dama ne wax ci audio yi wa waaw ci télé sangam lolu non dama ne audio yi man duma tuddu kenn dama ne audio yi man na am sax liko téré genn ba nagay ni mhm. man ci la bok yow ndax sëñ bay waaw lu mu dédé man wóolu na ma woo ma ba ma ñëw mu ne ma am déglul li waaw bi ma ko dégloo man ko li bu mhm. dina yaq lu bari dina am lu mu défar nak lu songko, mhm. ci côté sonko waaw mais dina am lu bari lu mu yàq mhm. ci réew mi man bu ma mana waaw nga téyé ko ah. mu ma léegi lo ci xalaat man ko man buma don doon xalaat man buma la xalaatal waaw lo ci bëgg yow la ko laaj ba pare mu man dëgg feñ jamu am mana mané ko budé mereka rek am ak deug feñ mhm. nañ def nañ téyé audio yi ñu def yité mhm. ba gis Macky Sall mhm. señ baye ngi may dégg ñu jox ko audio yi mu déglu ko su ko dégloo bu noppee nga ne ko nag tegal mbir mi ci yoon wala ñu tasaare ko ndax lii Macky Sall du ko romb mukk di génn hmm? du ko non bu ko déglu woon du bàyyi mu jàll du bàyyi mu jàll voilà man sëñ moom ne man ay gis Macky Sall ak moo tax ñii di ko saaga naan daa bëgg xaalis xamuñu dara hmm. ay gis Macky Sall ak ay gis yi moom man loolu du sama domaine bëgguma loolu waaw dégg nga ma ne fa en tout cas daal audio yi moom leer na nañ boo ko dégloo amul kenn ko ñemee miim na kii di wax Adji saar la kii di wax sëñ Mbay la. waaw léegi nag ma ne ko nag tey ci nag. waaw voilà parce que am na lu muy defar mi bari na lu mën a yàq. Mm. tey ci tuuti. Mm. nga xool. man loolu laa ko mujjoon a dénk. aw ma ci nekk fii di yàq deru nit. wala def dara. nit mais waaye nag waaye nag. gis nga mais c'est sa sorte bi nga def da ne. Euh, da nga ne am na koo xam ni nee na lépp lu aji wax dëgg la mi ngi weddi man tuduma eh, sen mbay koku tuduma waye koku mi ngi dem ci télé amna Wow, luñ ko waxal waaw waaw bu wax jigéen ni mi ngi won ci télé sanga mi ngi won ci télé di wax koku buñ ko euh en tout cas dal euh, man amna ko koo joxoñ man dal joxoñu ah. ma kenn man dal joxoñu ma kenn man buma sañon waaw ñi fi nek ñepp yalla sutura waaw mu sangé ko mm-hmm. deru kenn baña xawé mm-hmm. man dal li wax moy Macky Sall waaw lii mm-hmm. wallahi asim man awma ben mere ci mom wala ben mere ci kenn gis nga ko yaakaar ne dama ko mere rek man mere wu ma ko ma kenn ak jafe hmm rew mi jak ta am jamm lepp yi dox ci deug ak yoon rek moma yittel hmm li ba nit ñay dé kaddu Ousmane Sonko dong lañ gëmon waaw dañ leen won dañ ma kompolo nit ñi gëm na dañ ko kompolo kep waaw nit ñi nak dañu gëmon na dañ ko kompolo tay nak dañu xam ne dañ ko kompolo mhm. dañ ko xam waaw dañ ko xam li wax yaqin la ci ñepp am waaw deug la gis nga bu ñu insister ci li hmm ji am ñoom mënuñu ci dara keneen mënuñu ci dara. Mm-hmm. man su ma doon ñoom nag. waaw euh, affaire bi bu cóolee da ngay xam ne cóol na daal. cóol na waaw affaire bi dafa cóol. cóol na waaw bu cóolee rek cóol na nag mu jeex. ñu bañ fay nekk di affaire baad wala di insister. Mhm. di ja di ba leneen di xew loo xamante ni bu ëllëgee ñoom ñëpp duñ duñ ko mën a mesurer. dëgg la voilà. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis defe naa ni kon audio yooyu nga xamante ni bii bés bu yegsee ci suka partagé moom ba léegi wër na dëkk bi kon defe naa ni da ko gars yi balaa muy yegg dugg ci portable suka Cheikh Bara dañuy ñëw nag ci Ahmed Aidara démissionné na ginnaaw bi coow li ne kur sénéra di wax jékki-jékki démb mu dem di def revue de presse gis nga la ñuy partagé ci internet bi ndeysaan ak na nga xamante ne bi noonu la ñëwee woon def liggéeyam la am am ba journaliste ya ñoom di hihihi ndeysaan yooyu yëpp daal di am léegi nag ginnaaw bi mu démissionné ubbi na chaîne YouTube noo jàngatee loolu nga xamante ne bi moom la Ahmed Aïdara def parce que sen youtube bi sax dafa commencé naw parce que démarré gu rek mi ngi ci ay 3000 abonnés ci bisub tay bi bi mu ko ubbeeg léegi. Hmm. voilà man buma paré dem abonné ci <laughs> yego mako won léegi. <laughs> Ah. Ahmed Aïdara. Mm-hmm. dafa am acte bu mu def bo xamné dafa am solo. moy mm. nek maire. Mm. continuer sa liggéey di xey di liggéey. waaw ah. lolu dafa am lu mu ñu doon jàngal. moy mm. ñun. bu ñu nekkee am maire wala ñu nekk dara dañuy démissionné ci lépp lu ñu doon def nekk ci maire bi kese. Mhm. loolu nag day jur bu mandat bi jeexee. Mhm. dangay lànk di siisu. parce que da nga naan su ma bàyyee lii léegi lu may def. Mhm. maanaam loolu daf koy indi. day indi tamit euh, nga nekk ci maire bi activité yi nga doon def mu lay jural xaalis soo ko bàyyee. da mujj sa dépense yëpp ci maire bi nga koy bëgg a di sàcc ci xaalis bi. kon moom am na lu mu tàmbali woon loo xam ne dafay doon wane ne mën nga nekk maire ba noppi am sa yeneen activité yoo nekk. Euh, mais malheureusement bu dee ci Bougane man dama gëm ne am na ci perdant mooy Ahmed Bougane na ko doon jariñ hmm. bi dem Ahmed demee ba man koo jariñ mu perte ko. Hmm. bi ci des mooy ñi nga xam ne dañ koo sanctionné mooy Babacar Diagne moom man damay wax ne moom dafa primé. Babacar lo Babacar dafa primé. loi yi mu yor prime Euh, sees boobu mu toog muy général dafa primé. Hmm. amatul benn njëriñ. waaw ah su yaakaaree ne télé. Ah. mooy lii nga jàkkaarloo nii rek di ko xool. Hmm. nga coupé signal nga xam ne boo taalee télé bi du tàkk. bu fekkee defe defe ne loolu mooy li mën na tax nit noppi. Ah. amul xam-xam. Hmm. tey damay wax ni xibaar yi gën a brillant. mu ngi ci nekkul ci télé bi. waaw wala balaa ñëw ci télé bi day ñëw ci ba am na feneen fu muy jiitu ba noppi ci internet bi. bi nit ñi gën a brillant. nekkuñu ci télé barki dembo gis na lambau mam Balla Mbaw bi nek ci facebook bi. fessal surano, mhm. bam ba del fees dell loo xamante ne salam na ma ñom salam salaam way kat yu bari fi buñ ko mané ci la yam mhm. mu fessal ko bam fess del jaay ay te demul ci ben télé demul ci ben rajo. ci mhm. facebook am la nek di publicité bam fess mu ku mel ñom jaw Ketchup ku mel ne ay ñoom euh, Duudu. ay Mahfous amu ci kenn ko nga xam nga nan télé bi lay liggé te Sénégal yépp leen xam. kon ban télé lañ nekk ñoom ba sénégalais yi xam leen. télé booba Babacar Diagne mënu ci dara. kon war naa xam ne loi mi doxul tey ji aadamoo rek. ban sénégalais ngay laaj aadamoo mu ne la xaw ma ko. ba aadamoo ban telee ko produire ba mel nii. Mola Morgan. tey semaine bii ñu génn yëpp mooy actualité Sénégal. koo xool ci internet moom ngay gis. ko ñaar ñoo gis moom la ñuy waxtaanee. pourtant génnul benn tele Babacar jaañ moo war a xam ne loi yooyu. maanaam 2006 bi fi YouTube duggee. la la loolu primé. la primé primé. bi jaay giñ jaay doole askan wi. askan wi maanaam ndax Ahmed Aidara lu mu dee dee dee bu nit ñi am na ñu ko bëgg am na ñoo xamante ne daanañ ko topp. waaw su ñëwee ne ko Ahmed dootoo wax ci rajo bi. Mm-hmm. dafa waroon ne ko li ngay revue de presse lii ak lii mm-hmm. baaxu ci dañ koy dindi. Mm-hmm. su ko bañee dindi nag ñu san sanctionné ko mais dañoo ne Ahmed yow too fi waxee. te loolu Babacar jaañ nawaat ne moom defu ko lu dul neexal Aliou Sall dong la ci jublu. voilà parce que moom euh, ci wu yàqu naa la bokk. mooy coalition wu yàqu naa yi ma fi waxoon ah. waaw ñi nga xam ne dañ ne wu yàqu naa moom dafa xeex Macky Sall ah. ba ci campagne électorale bam bi 2012 yi mm-hmm. Macky Sall da ko daan saboté ah. bu baax ba makki di ko kaas bi Macky Sall gañee ba toog Babacar dana wu yàqu naa kaso laa jëm mm-hmm. ne ko garaawul kaay suyal ma sall bu loo yi mm-hmm. loolu moo taxoon ñi koy def loolu yii ñu koy def te itam diggante manam tasukaayu xibaar yi ci bopam dafa am lu ci am solo lu am solo parce que yeen yeen yeen yeen journaliste yi bu ngeen nango sa bu ngor gi soxla kenn ñu fekk ci seen biir rocc duma na ngeen xamne yeen ñepp lañuy door hmm. parce que bolo gi ngeen di bolo di dimbalante loloy seen sécurité su ngeen bayante new doole hmm. waaw bo gisee alcorane man khatala nafsun bi xayri nafsin aw fasadan fil ardi faka anama khatala nas jamian moy bu ngeen baye ñi ray nit hmm. ci seen ciobare bop rek dara du len ci fekk na ngeen jàppane yeen ñepp de ngeen deug la voilà loolu il faut ñoom ñu xam ko. Hmm. parce que man damaa dem ba xam ne. gis nga lii nekkatul ay affaire de loi maanaam ak rancunier la. rancunier tey jii Hadi Wade. waaw Hadi Wade. bu hmm, ah, nekkoon. cosaanu mooy mu daan defoon mu nekkoon RTS. te man ba may xale ba léegi RTS laa koy gis. muy liggéey liggéey bu am solo. dañ ko dañ koo def yóbbu galaas mooy frigo la xaw ma. frigo xam nga lu mu def. Hmm. jour bi Lions yi jëlee coupe bi. Ah. ñibbisi Euh, Adi Wade di rapporter ci RTS daan ne waaw président Macky Sall tey gis nga lim am opposition bépp dajaloo nañ mooy ba fa ñoom Khalifa Sall nekkee. waaw daan ne président ko sax bind na président Macky Sall leetar. Mm-hmm. ministre de la nelaw et de la seetaan télé. moom la de la dëj laay wax et de la seetaan télé muy mbay Ndiaye. Mbaye Ndiaye moo woote boole ko. <laughs> waaw moom. dëj la mooy ministre de la seetaan télé Mbaye Ndiaye. <laughs> mbay jaay ko seetaan. mbay jaay ko seetaan téléphoné ne leen. téléphoné ne leen ne leen leneen dégg leen dégg leen Adi Wade naan naan ci télé bi président Sonko. laay dégg ngeen Adi Wade ne président Sonko la wax yi na ah ne ko Adi Wade yow yaa wax président Sonko ci télé bi ñu ne ko mu ne waaw. daal leen ma mu ne déedéet. Hmm? yow koy crime nga crime nga def. daa koy daa koy yóbbu ko galaas xam nga mbay moom kenn falu ko. maanaam bañ ko dàq intérieur ba léegi Macky Sall mooy koo xam ne daanaka dix ans yi. Hmm. Mbaye Ndiaye amul poste. waaw leen la koy doyee mooy alo télé bu dëj ba noonu non moom koy président bi ngi jaale ji diw. mu dem hmm. jiitu ji ko ci cortège bi gunge ko noonu ñu jaaree mu dem ñibbi. Hmm. Mbaye Ndiaye Mor Ngom moom loolooy seen liggéey. amuñu beneen liggéey ci ci dem dëj. Eh, ministre la dëj. kuy waxati booy boo xam ne ma nga seetaan mbay ngay seetaan. moo ko boole loolu moom man maa la ko wax. Mbaye Ndiaye moo ko téléphoné boole ko ñu ñu ñu ñu yóbbu ko frigo. te loolu teguñu ko fenn président Sonko dong dong dong ñu la yóbbu ñu la yóbbu ah, ah, ñu la yóbbu euh, frigo loolu loolu xeen mm, la oustaz Aliou Sall mii waaw moo faraan def min bar xaw ma lan mm. biiraam am ajuma ci ngoon waaw dem manifestation ànd sàmm jikko yi la def ñi ñu dàq hmm? waaw ni ko bu fi ñëwati bu fi ñëwati waaw waa RTS daaneel léegi RTS lañ loolu lépp ca RTS RTS waaw te li ma lay wax mi nii mm-hmm. dëgg la ñoo koy def waaw loolu nag mooy maatay gi ñu yore réew mi. Mhm. te loolu mooy lii Babacar Diagne def. Ahmed Aïdara képp. Mhm. Ahmed nag. waaw li am solo te am solo mooy. mooy lan. Euh, média moom mënutu cee jariñe mhm. jari mënutu cee jariñu jariñe rek la ci mën a def. waaw voilà parce que boo ñëwee nekk ci média ba ñëpp xam la ba nga mën a dem ba tey nekk meeru géejawaay. waaw euh, kooku gàcce ngalaama. li ci des mooy na na na na na teg plateforme am te gëm ko. continuer combat waaw waaw parce que tamit dafa am nit ñoo xam ne dañ ko bëgg. en mhm. ah, dehors politique bi te loolu tamit bénéfice la ci man mhm. mhm. macha allah jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis euh, ci li nga xamante ne bii moom nga wax ci mbir moomu kon dañuy ñëw ci euh, troisième point bi nga xamante ne bii dañuy ñëw ci ki nga xamante ni moom la ñuy wax président Macky Sall n'est-ce pas mooy euh, président Macky Sall li nga xamante ni bii man maa ngay plan de Cheikh <laughs> mooy wàllu loyaas <laughs> bi location dund gi rek yu ma xamul yooyu. président ak ceeb bi ak nañ koy béyee ci dëkk beeg li ma xam. ñu béy dundee gi eh, Fatima doon wax sànq. Mhm. ne léegi autosuffisance eh, en kii ak yooyu tam waxoon ko fi. waxoon na fi lu mel noonu ci lu jëm ci wàllu dundu gi ak yooyu te ba léegi loolu doxut te it eh, li nga xam ne nee na ci loyaas bi munu ci dara. waaw parce que mënoo jënd sa suuf jënd sa ciment jënd sa fer. waaw mu lay wàññi loolu nag moom boo bëggee dëgg-dëgg. Mhm. sunu réew mi. waaw daa amul président. waaw amul. président ci boppam moo fi amul. Euh, Macky Sall. waaw moom président bi Macky Sall bàyyi na bu yàgg. fii na ci ah. ay barki yàlla. dafa nag wallaahi fii na ci ay business am la nekk. business dugal génne ay commission ay rof rocc waaye yor réew mi nii jël ay décision yu baax pousse mu dem. Hmm. amu fi. bàyyi na te bu ngeen seetloo dëgg xam ne Macky bàyyi na ña ko waroon ba nañ daanaka waxi Sonko yi ngay gis kan ko am solo ci APR ngay gis mu toog di ci wax. Hmm. ah duñ ci wax seen yoon nekku ci. pare ñoom ñëpp kenn ku ne maanaam yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci sa bopp. man na xam nga man damay jàngat réew mi de loin man damay toog na la di se di mais man li ma gis mooy président bu démissionné. Hmm. gaañam àndaloon kenn ku ne yaa ngi war ruq boo taxaw. Hmm. voilà mais Macky Sall nekkatul président boo xamante ne. dina indi ay projet yu bax hmm. pousse ko hmm. mu dem nek njariñu askan wi kese mu dem hmm. togat ne mi inauguré di gire yep marché yi la yalla xam doyna na ah la mané ne gis nga bu fekkentene da taxaw ne mënu ma dara ci location lolu kon 2012 la ko waroon a xam ne lii mënu ci dara waaye dafa ñew jël suñu xaliss monté fi ay ay ay ay ay ay ki, sonal ci député yi wate ay loi jiko jema appliquer bam neex ko waaw ñu toogaat juróom ñetti at maanaam ah loolu daal mënuma ci dara. waaw loolu médecin bu la ko defoon nga toj nob bi. Hmm. maanaam indi sa malaat mu téye ko fi téye téye ba doyal naan la mënuma ci dara. waaw mécanicien bu ko def ci sa oto nga nga toj nga toj bi. Hmm. réew mi dong lañ ñemee def loolu. Hmm. mooy yor loi kur kur kur bam neex la nga taxaw naan ci dara foko tek nga nan souf ak ciment bi ñi dañ koy jënd bam koy téré tamit pourtant souf ak ciment dañ ko doon jënd tam mu ne woon na maa location bi mm-hmm. lolu moy wane ne mom toujours fay nax nit ñi bi ci des moy mm. dëkk bi tay ngay xey yor sa auto do am gaz gaz euh, gaz essence boko am essence nga ak japp yap amut nga ak gaz gaz amut mm-hmm. fer ak ciment daanaka par journée lay yok waaw voilà lolu du dëkk lu kenn xam Hmm. manam dekk gi comme jun ju adag ko dag waaw manam kenn xamul lu mi nurul te da fay wone ne rew mi nekkut ci ay loxo ta taxaway bi ci wara taxaw dafa dess hmm. li ci dess moy ñoom ñi affaire bi wara ñor politique kep ci lañ nek di dugal di genné recevoir di ndogu hmm. jappal ci sama liste bi buñ dem liste parallèle lolu mo leen itteel mais gaz a ngi manqué essence ba ngi manké seen yoon nekku ci xolé euh tay ji mbay mi muy wax naan man nañ ci Euh, dem ba nga xam ne lii gis nga suñ mille milliards yi ci terre bi waaw su fekkoon ne moom la teg ci taabal ji daan na mm. acca ñëw leen ñu bay dunde mm. day mën a nekk waaye xam nga ne terre bi dëgg dëgg nag amalul njariñ nit ñi mm. voilà yaa ngi de bu ñuy dem ak dikk li ñuy dem ak dikk daa seer baaxul ci ñun terre bi moomuñu ko gis nga stade bii ñu ñëw teg di ndamu nii waaw nee nañ dafa dem Russie fekk fa stade bu mel nii mu ne da koo bëgg waaw Russie ñaata at la dem doo ko mën a am stade bi doo ko tabax stade bu mel nii mm-hmm. dafa pare na ci lu baree bare ci wàll économie armement santé ah, lépp ba toll ci organiser coupe du monde doo ko defar stade bii mm-hmm. ñun nag amuñu économie bu baax amuñu santé bu baax amuñu njàng bu baax amuñu dara mm-hmm. dem di xool stade bi riche tabax ñu koy jéem a tabax moo lay wan ni ñun xamuñu xamuñu luy war a def mm-hmm. mooy li ngay wax nii yëpp daanaka defar loo xamante ne amal na njëriñ nit ñi c'est loolu néew na lu ñu koy gis. d'accord mm-hmm. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis tey nag euh, comme que dese nañ euh, six minutes euh, Cheikh Bara da nga may dara nag tey ci ñu ngi ci koor gi ana ah, waaw daanaka. waaw koor gi nag waaw wàññi ko. waaw koor gi la gi moom li may soññ nit ñëpp rek mooy xam ne. koor la weeru jaamu yàlla la. jaamu yàlla nag dafa am ñaar yoo xamante ne jaamu yàlla féete bu ko kaw. moy moy hmm. zikar turu yalla hmm. ak nawafila ak nafila waaw hmm. zikar turu yalla ak nafila kep ko xamne yalla dafa dogal nga nangou guddi ñepp teud nga taxaw di julli jang alquran di ko sujoot di julli ci yalla manam taxaw di julli guddi lo ñaan boko saxale boko saxale lo ñaan yalla def ko boko saxale do torox ci aduna boo ko saxalee julli ñaata rakka Cheikh Bara naafi la rek di naafi di dem waaw naafi la rek noonu ba ci ñaari rakka sax balaa ngaa tëdd nga wéet yow ak sa borom képp mhm. nga teew la ko julli ñaari rakka dafa am lu dafa am énergie bu muy def ci yow mhm. dafay dem ba nga xamante ne maanaam da wóor ne am nga yaqin ci ne yaa yaa yàlla yaa ngeeg yàlla mhm. parce nit bu jegee yàlla mhm. daf koy xam bu soree yàlla tamit vide bi day yëg ne dafa am vide mhm. gis nga sori yàlla ba am vide mooy waral nit ki gis ay milliards sàcc ko par mhm. parce que dafa am vide bu muy yëg ci biiram mu defee ne bu amee ay milliards vide bi dañ am na ñoo xam ne vide boobu ñuy yëg mooy tax dañuy dem ba jël sàngara di ko naan parce que dañoo am yëg vide ñu bëgg am leneen luñ ko remplir am na ñeneen ñoo xam ne dañuy def sol ay mbase bi dugg di génn di jaayu pour nit ñi tagg leen parce que widd mm. bi ñuy yëg la te widd boobu amul lenn lu koy remplacer mm. lu ko mën a remplir ba mu fees muy jege yàlla rek jege yàlla voilà moo tax diggante zikar ak euh, euh, nawaafila moom koor avant koor it baax na waaye ci koor la gënee léegi nag bu dee ku bëgg di zikar ñetti zikar am na muy ban mooy bi nga xam ne da koy def li wajhi llaahi taala mooy yàlla képp nga ciy wut mooy yëg yàlla képp yëg yàlla loolu mm. am na baax na ci ku ko mën ngay def euh, yaa xayu yaa qayum yaa xayu miil miil miil waaw bis baax na waaw nga di ko def rek mm, noonu mm. bu fekkente ne dafa gudd maanaam turu yàlla yi nag yàlla dafay tudd fii mais est-ce que yooyu ay du am lu ñëw déedéet dara du ñëw loolu ah, turu yàlla la bu am naa turu yoo xam ne nag maanaam boo xoolee yàlla day tudd fii xahaar tudd fii salaam salaam waaw tudd fii euh, fattaax tudd fee rasaax maanaam ni mu turi yu wuute noonu la melo yu wuute noonu la ñi koy jëriñoo étape bi ñu toll wute mm. ki wérad yi mm. li muy wooyee yàlla bokkut ak ki wér te am xaalis li muy wooyee yàlla mm. ki ñàkk nga xam ne dafa ñàkk ba xolam wow ma ngay am na nu muy wooyee yàlla yooyu yëpp dafa bokkul waaye lu ci mën a nekk rek bu fekkente ne koo xam ne dangaa yëg ne sa jamono dafa metti nga fexe bay def Euh, yaa latif 1111. yaa latif 1111 1111. saxal ko rek bañ koo bàyyi bañ koo bàyyi bañ koo bàyyi. insha allahu. Mm. di nga yëg bëtub lutfa bi yàlla def ci sa digganteeg moom. Mm. mooy yàlla daf lay ñeewantal benn naqar wala benn jaaxle du nekk ci sa yaram. macha bu fekkente ne koo xam ne tamit dafa yëg. Mm. ak ay tawat ak lu mel noonu. demal ci istixfaar 1947 yi baax na. 1443 baax na 1443. Mm-hmm. baax na nga koy sikar rek. baña ya, bayyi baña bayyi baña bayyi insya da nga yek ne yak sa borom yene ngi nek waaw su ko defé waaw ñewal ci programme bi programme bi moy waaw ma ngi fatali wat ne nim daan doxé rek amul benn soppet bu ci am amul benn soppet bu ci am xana gëna téla xey tuuti rek dal amna hmm. pour gëna téla wacc lolu mom dañ koy gëna wacce wat heure xey danaka waaw waaye daal lu jiitu loolu mooy amna nañ cabinet touba boo xamante hmm. duñ fa faj rab nag duñ fa def sangatu bayre waye leneen lepp lu ngeen deg ma diko ko faj rek bo demé ci cabinet bi muy asthme city diabète tension ngora hmm. affaireu hémorroïde interne ak euh, euh, affaireu euh, estomac yoy yep bo demé dañ la ko fajal mu ngi ci Touba Guédé hmm. boori keur seigne Bass Abdou Khadir hmm. numéro bi 78 141 55 22 78 141 55 22 bu fekkee nak fi ci Dakar aljuma ji ngeet lañuy ci ta seigne mansour terminus 48 wala nga ñew ci kër pam ndjay ciopet bo ñewé kër pam ndjay rek nga ne ko kër seigne bara la jëm moy ci asale morifiski hmm. bis bobu dinañ fa fajj affaireu hémorroïde hémorroïde moy ñi séré ngeem ay tok ay jour do dem toilette wala ngay dem toilette rek air di genn hmm. wala ngay am balotement bir bi kurkuri nga xamne do mëna xif lo lek du res hmm. wala muy dem bay balotement yi di delo sa awra wala muy wañ sa ngora waaw yooyu yëpp affaire hémorroïde interne la soo ñëwee dañ la koy fajal boobu moom góor ñi la rek wala mm, mm, jigéen ñi mm, déet góor ñi rek la ah, waaw waaye jigéen ñi tamit hémorroïde am na yeneen conséquences yu leen di teg mooy dina metti biir di metti ndigg yooyu yëpp hémorroïde bi da koy joxe waaye daal lu mën a am mooy hémorroïde ak lu yokk ngóor ak ndoxum siti boo ñëwee danañ la ko fajal foofa mm-hmm. affaire asthme tension diabète estomac euh, yooyu yëpp boo ñëwee ca kër ga danañ la faj ba mu wér ajuma ji sangat ci lu ub jëm ci ubbiku parce que ñun am nañ ay sunguf yo xamantene boko ah. sango mom lepay moom léppay dox insha allah boo dañ lay defal sangat man tamit ci aljuma ji mm. euh, sangat ubbeeku bayre wërseuk luy tax nit ñi bëgg la luy tax xaaliss yomb la légui nak bu dee àjjuma ji mom bo ñewé non lay demee mm. programme bi ma wax ci aljuma ji tamit moy dox samedi fi ah. ci asalem de ginnaaw école ma sall moy dox dimanche fi ci asalem de ginnaaw école ma sall lundi mm. jour la bo xamantene rap lañ ciy faj maanaam lépp lu jëm ci wàllu rab bu dee da laa tëj bu dee mënoo am dara loo am mu dem bu dee loo yaakaar mu tas ko bu dee da ngay gént di sëyal bu dee da lay xiir ci mastir bi yeewu mm-hmm. bu dee boo amee gisee sa jëkkër sa xol di tànk bu dee dafa tëj sa kii ba mënoo am doom mm-hmm. bu dee da lay merloo kenn defu la dara ak wala mu lay teg ay bopp yu metti mm-hmm. ay feebaru ngelaw yooyu yëpp boo ñëwee ci benn bis bi altine ji boo ñëwee ci même altine ji ci lañ koy faj mu wér d'accord waaw jërëjëf euh, waaye nag balaa ngaa ñëw altine na nga woote da ngay téléphoné ne damaa bëgg a ñëw faju si rab mhm. ñu jox la jour bi ngay faju si mhm. bu dee ci affaire wu ndomba yooyu ma doon wax mooy ndomba tur yi ak yi nga xam ne day maye euh, bay rek yooyu mhm. ak liy wàññi nit nga xam ne boo bëggee jeex dangay ngay jël numéro téléphone bi ci ngay woote muy 77 984 74 63 77 984 74 63 sama kii bi doo ci wax salon d'honneur bi. salon d'honneur waaw tey ah. waaw bu may tëj laa ciy wax xanaa balaa ma ciy wax nga doon tëj. non non. xaar kay ba ñuy tëj. yow yaay wax nii fi mu toll nii di. xam nga danga may xeex quoi li ma la yàq. <laughs> Hmm? voilà euh, mu nekk Cheikh Bara Ndiaye borom def gis tey nag da ko gaa yi kar ci fi nga xamante ni fii moom la ñuy wax salon d'honneur moo nekk invité d'honneur moom Cheikh Bara Ndiaye kon tey defe naa ni affaire yi dana toj parce que foofu gaa yaa ngi koy xaar Cheikh Bara Ndiaye ca salon d'honneur kon numéro téléphone bi nag di leen wax ne leen 77 la 610 81 81 77 610 81 81 tey jii la Cheikh baara di dem salon d'honneur tey la leer naam tey la. yooyu tey la 22h tey bii ñun ñoo toog wax leen tey la ngeen ñu li may waxatee ngi nii xibaar bi fii lay jóge wala foofu. tey la macha allah ayo ayca kon nag mi ngi noonu mën ngeen ko xaar 22h ak équipe bu salon d'honneur moom ma baari Bara Ndiaye ma def gis dana fa teew waxtaan wi dana am solo mooy góorukat yi di euh, góoru soxna Mbène ñu ngi leen di.